maire maire Kaolack maire Kaolack ba ma ñëwee Kaolack ba ma ñëwee Kaolack laa ànd ak suñ fii benn élément bu dëkk Kaolack ñu dem ci maire bi ñu def suñ demande man ba may def foofu man xaw ma kuy Lamine Sène lu dëkk Lamine Sène lu mu lu ko la conseil spécial mairie kañ la am conseil spécial ban mairie moo am conseil spécial ah demee nga xool ngeen xool ñaata magistrat ñoo am terrain Kaolack man aw ma aw droit am terrain kawon te ma dama dëkk Kaolack juddoo ganjay gi eh, ba ba màgg ñana ñaan naa maire bi tera bay ma terrain kawoon waaye kuy Lamine sen conseil spécial bu ñep dafa am xale yoo xam ne mag mu bugg jàmm mënoo mënta ak ñom amuñ yar amuñ teggin yaruñ ñen sen kër yaruñ ñen ci mbedd mi yaruñ yaruñ sen bokk kon comme ma nekk dem sama na ko da yow ngi premier président ak jaar yépp muy Sénégal muy Suisse muy ministre conseil euh, juridique président de la République muy leneen muy muy muy taxaw di la wax ay dossier peut-être donc yàlla yàlla ci waxtu la ma leen waxoon ci sama lettre ba moo ñëwaat dafa am xale yoo xam ne ci magistrature bi il faut ñu xolat ko wéguñ seen kilifa yi joxuñ leen cër jàpp nañ ne ñoo leen gën a xam te seen njàng motul xoolal xoolal lettre lettre yaaya yaaya Amadou Diaby ñaata footi français moo ci nekk liir ngeen ko ñaata footi français moo ci nag magistrat nu mu mënee bind lettre bu lettre bu toll nii def ci lu mot fukki fukki faute ak juróom yoo xam ne mun nga ko suli nangu njàng jiit mag koo xam ne yow yow yow mu ngi si 40 ans yow sa 20 ans moo tagul nga ne nga ne yaa gën xam bu la ne du nii nga ne ko nii la gedd dem woon ko woon ko gannaaw moo tax li ma wax moo nekk noonu mbir mi dañ koy xoolaat